ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen a leen ziar leen ah. seexu si micro ci caméra bi ceer ci micro bi ah tey nag ñëw fi nga xam te mooy RDV ci salle musculation bi c'est si xale boo xam te ne bii ndaanaan la ci biir làmb bëri na fi ay daksaan yoo xam kenn du ko fàtte mais dañ toog ak giir gisuñu ko dégguñu ko xamuñ ci nekk moom lañ ñëw xool ci la la nekk muy ki nga xam te ne bii mooy Sibel nekk foofu ci Ikiri Ndakaaru kon seex rek mooy topp ñu xool ki nga xam te mooy Sibel lu muy def ci biir saal bi ak fu mu toll ci biir làmb ak lu gaaw si mu bële ndax dégguñu ko gis ñu ko kon ci Kewel Info lay xewee ah danga may topp si ma xool subel ba xam ci lu mu nekk moom. kon Cheikhou jërëjëf comme ni ma ko waxoon sànq rek maa ngi seet si benn xale boo xam ne bi ndaanaan la champion la ku ne xam na ni mi ngi ci biir làmb di wane boppam mais nag gars dañ ko dañ ko gëj a gis ko dégg te comme ni ma ko waxee rek chaque jour rek mooy xool ñi nga xam te ni làmb da leen di fàtte fàttaloo ma loxatu leen ndax dañoo bokk ci biir làmb ji ma waral tey mu ñëw fi nga xam te ni mooy Excaf seet si benn xale benn ndaanaan dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg bi ndax gëj ko gis gëj ko dama ko bàyyi mu nuyoo Sibel maa lay nuyu. waaw maa lay fay. Mhm. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli yonent bi sant suñu waa ñaari waajur. Mhm. maa ngi sant sama sëriñ sëñ mu Mbacke Elimaanu Poroxaan di sant Cheikh Modou Fall. di sant njabootam gépp waaw di jiital nuyoo bi suñu patron. waaw ak suñu responsable sam papa ji toog di mhm. monsieur Lamine Ndiaye waaw di responsable commercial foofu Sibel nga xam ne moom lépp lu ma dugg lu ne. moom da koy jaral lu ne day yëkkati xaalisam teraangaam di ko def ci man te xoolul li mu am ak li mu amul waaw di nuyu maam Cheikh Bentali Bass Ibrahima Gueye Ablaye sama mag Papa Ndiaye Aliou Sarr Dieng Seck Cheikh Sall Touba As waaw di nuyu sama fans club bi yëpp nag di nuyu sama papa suma yaay suma xarit waaw samay mag samay rakk waaw ñëpp ñu ngi nii waa Jaxaw Siin tamit maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Fatick bi ma dëkk mm-hmm. waaw di nuyu NGB benn tali ñaar tali Grand Dakar nga xam ne heure bu ma jógee ñu jóg waaw ak waa Écrine ndakaaru di nuyu sama papa Kati Diop ah, ak Père Mbaye Cissé Pa Youssou Diène eh, Chris Koros Aliou Badou waaw di nuyu tamit ñëpp ah di nuyu waa Écrine Dakaru ñëpp waaw uh-huh. mais Sibel dafa nekk benn xale. waaw dëkk benn tali fa yaroo fa waaw ku wax benn tali ñaar tali Grand Dakar wax làmb ndax booy Bambara mooy làmb. dëgg la fa daan dem bi ma nekkee xale di seetaan ñoom Saalum Saalum. ñuy bëre Tafa Boy mu neex ma lool. waaw ñuy bërëntu foofu bu làmb ji jeexee ñoo daan delloo saisi ñoo ko daan indi ñoo daan àbb sër mhm. waaw euh, di nuyu Aliou Badou xam ne lépp lu ma xam ci laamu moo ko def ci man doomu dut Baka Sarr waaw daf may woo fu kenn newul ci ruq naan ma defal nii defal naa defal nii kaay di ma jox ay technique ak lépp mhm. waaw ma ciy bëre mbapat di ci sant yàlla léegi mbapat léegi la moo la ci boole koo donn wala bëgg-bëgg la wala man sama maam yëpp dañuy bëre ah. soo waxee Fatick wax làmb Fatick waaw sam Fatick la dëkk dëgg la moo doon dawalal papay Cheikh Hmm. directeur port waaw di nuyu Matar Ba di nuyu Macky Sall monsieur le président de la république di nuyu Marème Faye Sall di nuyu Mbagnick ak képp koo xam ne séeréer nga maa ngi lay nuyu ak ku dul séeréer maa ngi lay nuyu bépp xeet boo dee jullit ak catholique ak ñëpp maa leen di nuyu ndax ñëpp may ñaanal. dëgg la mën nañ xam mbapat naa ba tas. comme fan ak fan nga mbapat. naa Esat mbapat naa Arène Garañoy Adrien Senghor. lamb Yékini bi passé. Hmm. Euh, Reug Reug moo ma génne. moo la génne waaw moo ma génne huitième de finale. Esat Demba Diop bii. Demba Diop ah mooy bi mu tegoon noonu. waaw bëri naa ci ba huitième de finale Reug Reug bërëg man di champion di ndaanaan hmm. waaw ñu nangul ko ko tamit ndax wax sa mbaaxu waaye du waañ sa mbaax dara daa mën a bëre mais à part Reug waaw nga bëral ci biir làmb ko xam tamit xam na Farba Ndiaye laa mu xam ko. ci Mbapat quoi ci Mbapat. ci Mbapat. dafa toj Mbapat. Mhm. Farba Ndiaye Pikine mbooloo. Farba Ndiaye a jox defet mhm. waaw. Pape Abdou Fall moo ko tëgg. vidéo yaa ngi fi. Mhm. Ah. Saalum Diallo ñetti yoon laa ko daan teewaawoon Pape Abdou Fall ci tribune bi la wàccee. ñëw day tas lamb ji parce que daan naa ko ñetti yoon. Brise mer Dem ñoo ko bëri man lu mu la day am preuve. Pape Mor Lo laay gaynde maa bëri spécial bi Brise de Mer Ameth Deme maa bëri spécial bi. mën naa ñëw ci arène bi mën naa ñëw ñu yaatu sama yaatu laa bëgg a taxaw. waaw carrément. Mhm. nga ma à part rëgg-rëgg. Mhm. nga ci bëreel ci biir Mbapat ku làmb xam 100 ci biir Mbapat ay ñoom usine doole ñoom ñëpp bëri na ak ñoom. ñooñ ñëpp bu may lim nii làmb xam na leen ñoom ñëpp. Mhm. waaw ñoom naan di faal ñoom ñëpp ay mbër lañ ay champion lañ. léegi nga jógee ci da ngay dem Mbapat da ngay dem fekk fa écurie yëpp. kon mbër yëpp ngay waxal. bu ñu ci mbapat. écurie Dakar nga mos a nekk. écurie Dakar écurie Boy Bambara dem naa fa mooy bi ñuy fowantu di bëre. ma dem fa euh, sama papa Cissé yàlla na ko yàlla yërëm garde corps Pape la maire. di sama papa. lépp lu ma def làmb moom moo ma ko defal sama papa. yàlla na suuf oyof si kawam sama yaay Faat Seck maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram sama mag Zal Samb Espagne kooku moo daan taal otoom ba léegi su may bëree otoom lay yëkkati xaalis bu bëri jox ma Zal Samb ak Abu Dem magam. waaw ndéegu bi sama mag nga xam ne moom da daan sonn ci man yàlla na ko yàlla yërëm. waaw di ko ñaanal yàlla. Ah, dama bëgg a xam. Mbaye Cissé moo ma yóbbu écurie Ndakaaru. écurie Ndakaaru sa dugg écurie a xam naka la demee. lu rafet. écurie Ndakaaru dama fa nekk nekkin bu rafet nekk xale dama fa fekk nag mbër yu bëri. ëppoon nañ ay cent et quelque bu fa Yékini nekkee. Mhm. waaw ñuy bëri. Euh, ki ñuy wax de moom ndaama la. bi may ñëw moom a njëkk a ganale ci écrit bi yëkkati ma ba ci kaw dóor ma. dóor la eh, écrit bi li muy bëri nit yëpp bi ma jógee gisuma kenn. ndax daa mel ni ay biddiw laa doon kii. kati ne ma acca dina baax may dem géej boole kook saal di entraîner mm-hmm. bi ma ñëwee dem ba tënag mm-hmm. di bëreek ñoom Yékini Junior sama mag ji Papa Ndiaye di bëreek Malick ñaa sama doom ndey mm-hmm. brise de mer. waaw ba ci yëkkati bu mag bu amee combat dañuy contact ak moom. foofu bëgg naa fa taxaw tuuti. maanaam ni ngeen nekkoon Ikiri Ndakaaru. ku ci mel ni Yékini Junior ak Yékini mu mag. Mhm. ak Brise de mhm. boo yi fa nekkoon bari na trop macha allah ay alubadu. Mhm. maanaam doxali bi naka la demee woon foofu noonu ak nekkin bi. waaw Ikiri Ndakaaru nag dañoo mës am yar am teggin mag day jox rakk cër rakk jox mag cër. loolu lañ doon dundee ndax suñu papa kat ku am fulla la am fayda. kenn yabu ko kenn fekk ko ci dara lu ñàkk euh, caaxaan lépp lim lay wax mooy li mu yéene doomam waaw maanaam lim ñuy lim ñuy defal sax defalu ko doomam waaw suñu papa Youssou Dieng dafa daan nekk di ñu ñaanal suñu papa si se moom sañ-sañ lay def man man ak gëm-gëm waaw danaan la yaram benn la foo dóor mu góor la ngay góor te man gëm-gëm boobu laa mos a yóbbu ci làmb ji mbër bu ma affrontel mhm. je tag je cogne et je gagne te mbër yi yéen laay waxal match ba la ngi ñëw de retour. toog trois ans ci victoire laa toog. waaw di sant